ñu jeexal ko nag ci fàttali bis bu tedd bi ñu jëm mu yawma asura bis bu am solo ci lislaam bis la boo xam ne avant lislaam lañ ko fonkoon di ko di ko màggal jaahiliya duñ ko fonkoon lool daa ko woor yonent bi sallallahu alayhi wasallam dikkee nag fàttaliwaat koor googee ne nañ koy woor bi nga ko wooree ay yoon nag mujj ñu ne ko yéen koor gi ngay koor jaay nasaraan ay yoo ñoo ko daa woor mu ne kon bu dee bu ma fa bàyyee ren bu ma fa bu ma fa yàlla bàyyee ba déwén de danaa woo woor juróom-ñeenti fan boole ko fukki fan yàlla dogal fukki fan juróom-ñeenti daal muy mu génn àdduna moo tax ñu bëgg lool kuy woor juróom-ñeenti yi ak fukki fan yi waaye fukki fan yi nag moom sunnatul muakkada la kon nag bis la bu am solo la ci julli jëpp ndax li xaw ci bis boobu dafa bàyyi sunu maam Aadama ci ko yàlla bindee ci la ko wàccee kaw suuf Ibrahim ci ko sunu borom musale ci sawara sawaraam soosee yunus ci ko yàlla génnee ci jënam bi ginnaaw bi mu ko wannee dugg moom ci biir këcc ba wax laa laa ilaaha illa anta inni kuntu mina zaalimiin ci ko ci la ko yàlla mujj Muusa ak Haaruna ci leen yàlla musale ci Firxawn ak Haamaan mucc ci ay pexe ci xare géej gi ñu jéggi ko Firxawn ak ak i gaayam lab ci géej ga moo tax Moussa waroon ko ngir sante ko yàlla noonu géej gaal ga mu waroon bis bii ci la costee ca doj ba ba mu génn ak ak ñun ñi ci lañ ci lañ amaat ñun ñëpp yonent yàlla Suleymaan mi nga xam ne moomoon na àdduna ci la ko yàlla joxoon nguuru àdduna ayooba nattoom metti boobee ci la ko yàlla teqee ay nattoom boobee yuusufa ci la ko yàlla génnee ci bënn gën ko sànni woon bàyyam Yanqub ci la ko yàlla delloosee gis ba mu gumba ci la ko yàlla delloosee gisam yonent yàlla Isa ci la juddoo ci lañ ko yëkkatee ci kaw asamaan si yonent yàlla Idris ci la ko yàlla yëkkatee kon bis la boo xam ne bis bu am solo la bu mat a màggal la bu mat a def luñ ci war a def lépp la moo tax bëgg nañ ci baax nga ci yaatal sa njaboot di dinañ toggal togg yu neex di ci dimbale say bokk ak ñi nga xam ne ñii nañu doole ñi nga dëkkal nga dimbali leen ci baax bëgg na ci ngay siyaare borom xam-xam yi ak gaay yu baax yi lool ak di seeti ñu feebar ñi ak ñi dara ñi gaa ñi dara jot ñëpp nga di seeta ak di teral ji jirim yi ak di ci jokk bokk yi yëpp bëgg na ko ci bis bi ak di jéggale ñi la tooñan yëpp kon bis la bu am solo moo tax sëñ Tuubaa wax ci masaalik ni bis la boo xam ne bëgg nañ ko ci woor bëgg nañ ko ci julli fukki yëf ak benn la la fukki yëf ak yàlla suñu wax ne bëgg nañ ko ci bis boobu koor julli zawmun salaatun zilatun wa xuslu jokk bokk sangu sarxe léegiku tusngalu seeti ko feebal feebar siyaare borom xam-xam raaye boppub jirim boo xam ne mucc na jàng junniy lexlaas berneel sag njaboot yooyu bëgg nañ ko fukki ñaar yooyu ci bis boobu ndax wax na ne boo ci boo ci sangoor sàngaay lu mel ne sàngaayu faar sax leen moom lañ jublu sunu borom dana la musal ci ak ragg boo ci tusaloo sunu borom dana la ci gumba boo ci dee berneel sag njaboot ci bis ba sa wërsëg dana yokk kon nag bis baa ngoog nan ko fonk bu baax a baax yéen bi saa saa wax na ne inni axtasibu ala llahi an yukaffira sanata allati xablahu boo ko boo ko wooree suñu borom daan la faral bakkaar yi jëkkoon ci at mi yëpp kon nag lu am solo wax na itam ne képp koo xam ne yaatal nga ci man wassaa ala hiyaalihi fi yowmi asora wasaa allahu alayhi fi saatihi xam ne nga ba sa njaboot lekk ci lekk gu neex ba suur at mépp benn daan la yomb kon nag nan ko fonk bu baax di ko màggal te wax nañ ne ni nga xam ne ju naafila gi gën di naafila yonent bi salaa sallam afdalu salaati baada al maktuba asalaatu fi jafi layli wa afdalu siyaami baada san ramadan siyaamu sahri lamaar ndax weer yi weeru muharram yëpp dañ koo bëgg ko war sopp nañ ko ku moo tax ñu ne moo gën ci weer weer weeru muharram moo gën yëpp waaye nag boo ko mënoon nga fexe ba woor juróom-ñeenti fan ak fukki fan yi da nga day ci digle lépp kàddu gi nag lañ ci doon jokkaat ñu ngi nii ñëpp di sant ñëpp di dem ñëpp ñu ngi sant pares bi bu baax a baax ndax jàpp nañ ci liggéey bi ba am nu ko bëggee ndax ren moom ni ma ko waxee woon rek bind ñu leetar amul bi ñu carte invitation ci presse bi leen jàllale suñuy wax te teewut wax dëgg yàlla nam tool toll ci mbooloo ren la ëpp fuuf fuuf ak donte contexte Covid bi ñuy dund taw mu feeñ ci mbooloo mi ñun wuy si nañ ci anam gën bari ci loolu nag ci ndimbalu presse bi la kon ñu ngi sant presse bépp ñi mboolem ñuy liggéey ci internet waaye di beral ak cant nag ñoom mooy télévision yi nga xam ne ñoo ñëw nañ ca jàpp ci ay émissions yu bari mu mel ne Lamp Fall TV Touba TV ak euh, RFM ak euh, télévision bogaan bi seen TV yooyu yëpp ku ci ne am na mission yoo xam ne dañ ko jàllale ñu ko ak rajo yi nga xam ne ñoo ñoo ci département bi yëpp ànd nañ ci ñi ngi sant tam waa ñi nga xam ne ñooy internet bi ñun ñëpp taxaw nañ ci bis yëpp couvrir nañ ko jàllale ko ci anam ko def ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.